الحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد موك جلتي دا فا بوك سي خرنو يالله سبحانه وتعالى ني مساكه دوم ادم نخ يالله داف كو ساك داف سي موم اك متادي داف سي موم اك واغنيكو سي كاباسيتي ييغا خامني ييب ولا فاكولتي ييغا خامني ييب دوم ادم امنا مو خام سي والو جيم جي سي يرام بي لا waaye tamit ci wàllu xol bi xol bi ci li ciy nekk ci coobare ak pastif doomu aadama mënu cee àgg mukk ci mat bu mat sëkk mënul nekk faw dafa am ak wàññeeku guy nekk ci moom comme ni mu ko waxee ne wa xuliqa al insaanu daifa yàlla dafa sàkk doomu aadama ci néew doole wallahu xalaqakum min daafin dafa sàkk doomu aadama ci néew doole néew doole googu coobare suñu borom la subhanahu wa taala ndax mbir dafay feeñal contraire am mbir dañuy wax ne ak didd bi bi diddi mbir dafay feeñal li nga xam ne moom moo ko opposé bu njàlla sàkkee def ñu ay jaam yoo xam ne dañoo néew kàttan dañoo soxla dañoo aajowoo day feeñal moom ak matam subhanahu wa taala ci ne moom mooy alxani moo tax muy wax naan yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu alxamid muy wax loolu bu leeralee ñun suñu néew doole suñu néew doole ak suñu soxla da koy lëkkale ak moom yàlla subhanahu wa taala doylu gu mu doylu walis lu mu mën a doon ci ne soxlaalul kenn dara moom yàlla ku woomal la ku dul jeexal la subhanahu wa taala mu nekk ne loolu ñaax la gu muy ñaax jaamam ñi ci ñu fatt seen néew doole googu seen soxla googu noonu ñu fatt ko mottali ko ci lan ci wéeru ci yàlla sukkandiku ci yàlla dellu ci yàlla loolu la suñu borom subhanahu wa taala bëgg suñu dund yàlla dafa bëgg mu lëkkaloo ak moom motax tax mu ne wa ma xalaqtu wal insa illa liya'budun mu wax suñu bind suñu bind gëm ñu bind sakku ñu indi ñu fi fii way bi sens bi nga xamne mom la am moy jëm ci yàlla jël suñu lépp delo ko ci yàlla motax lolu yàlla daf ko def ci suñu bind gëm ñu bind ne ay jam lañ jo xamne suñu lépp ci yàlla rek lay yewone ci yàlla rek lay mate muy feeñee suñu new doole googu timi di feñ ci ne liñu yàlla sante bëgg ko ci ñun ñu war cee nekk jël suñu dund def ko ci mënuñu koo matal ba mat sëkk comme ni ñu ko yàlla sante faw ay rëcc rëcc dina ci am loolu moo tax mu waxoon yonentam bi alayhi salatu salaam ne ko qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid lan la ci def ne fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa waylun lil mushrikin mooy ne seen borom bi nga xam ne moo leen sàkk di seen yàlla ji ji nga xam ne moo leen moom kenn la ku ngeen war a jaam waroo leen ko bokkaale kenn wala lenn kon nangeen ngeen jub jëm ci moom te di ko jéggalu borom xam-xam yi ne bu lëkkalee sant ñu ne nañ jub jëm ci yàlla fastaqimu ilayhi ba noppi ne wastaghfiruhu dee leen koy jéggalu li muy tekki mooy santaane boobu mu leen sant ne jub leen jëm ci yàlla mënoo leen koo matal bu mat sëkk kon góorgóorlu leen ci la ngeen mën te boole ko di jéggalu di jéggalu seen i rëcc-rëcc di jéggalu seenu gàttañlu ak seenu matadi ndax yàlla xam na loolu ci yéen moom mi leen sant ne fastaqimu ilayhi moo tax mu teg ci ne wastaghfiruhu moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam doon wax naan istaqimu walan tuxsu istaqimu walan tuxsu mooy ne jub leen ngeen góorgóorlu ci jub waaye xam leen ne mënoo leen a jub xocc mënoo leen a jub xocc ndax noonu la leen yàlla sàkkee noonu la leen yàlla bindee kon yàlla xam na ci ñun loolu subhanahu wa taala moo tax mu waxoon ne moom daf ñoo bëgg a jéggal daf ñoo bëgg a yërëm ndax moom mi ñu sàkk xam na ci ñun ak néew doole waaye ñeneen ña nga xamante ne dañoo topp seytaane dañuy jëfandikoo suñu faiblesse boobu suñu néew doole googu ngir yar ci ñun ay bànneex ngir toppaloo ñu ay bànneex ndax xam nañ ne ñun en tant que ay doomu aadama yu néew doole dañoo am jafe-jafe ci tey suñu bopp ci kanamu bànneex yooyu muy tentation yooyu daf ñuy xëcc muy bànneexi bakkan yi ci lañu cheytaane di jaarale moo tax mu ne wa yuridu alladina yattabiuna alchahawaati an tamilu maylan azima mu jëfandikoo yattabiuna alchahawaat ñi nga xam dañuy topp bànneex yi ñooñu bëgg ngeen jeng wàcc yoon wi leen seen borom jëmloo lan la ñuy jëfandikoo li ñu jëfandikoo mooy seenug néew doole cheytaane xam na loolu ci yéen ndax bi yàlla sàkkee aadama def ko ca aljanna laata mu ciy def ruux cheytaane daf fa dugg di ko xool étudier di jàng ba gis faiblesse yi nekk ci moom mu xam ni du nekk koo xam ne kuy mën a taxaw di dékku ay tentation lay doon am na benn faiblesse bu nekk ci moom mooy am na ay bëgg-bëgg ak ay bànneex yu nekk ci bakkan bi yoo xam ni yooyu seytaane mën na ko cee jaar pour égarer ko pour réeral ko kon loolu ci ni ñu yàlla bindaalee la nekk ci ñun seytaane xam na nu muy exploiter faiblesse yooyu pour pousse ñu ci tentation mooy bànneexi bakkan yooyu ba wàcce ñi ci yoon wi ñu suñu borom toppaloo loolu moom mooy piège bi nga xam ne moom la seytaane teg ci suñu kanam waaye yàlla subhaanahu wa taala ubbil ñu benn bunt bunt boobu mooy bunt tuub ak buntu jéggalu muy bunt boo xamante ne du jeex mukk seytaane dinañu def loo ay njuumte ndax mat nekkul ci ñun mënuñoo ñàkk def ay njuumte waaye am na arme bu ñu yàlla jox boo xamante ni moom mooy réparer loolu yépp te loolu moom mooy tuub ak jéggalu yàlla daal dañu ubbi ubbil ñu bunt tuub ak bunt jéggalu moo tax yonente bi alayhi salatu ne bu ngeen woon doon du def ay bàkkaar yuy waral ci yéen ngeen di tub di jéggalu di dellu ci yàlla yàlla dina leen fi jële indi ñoo xamante ni dinañ def bàkkaar di tub di jéggalu yàlla di leen jéggal muy wane ne loolu coobarey suñu borom la yàlla moo ñu sàkkee noo xam ni ak matadi mi ngi ci ñun guy waral ñuy soxla fu ñu toll di ko jéggalu ak di tub di dellu ci moom yàlla moo bëgg ci ñun loolu ñun doomu aadama yi xadis bi de su ci déggee ne dafay wax ne nit ñi nit ki na def na def ci tayeefam ay bàkkaar déedéet tekkiwul loolu li muy tekki mooy dañ koo mënta ñàkk bañ a def dañoo mënta ñàkk juum suñu digganteeg suñu borom dañoo mënta ñàkk a gàttañ lu suñu digganteeg suñu borom ndax yàlla subhanahu wa taala moom moo ñu sàkkee noonu loolu nag bu ko nit ki comprendre xam loolu réalité boobu te nekk ku yeewu dafay góor góorlu fu mu toll di saxoo di taqoo ak tuub ak di jéggalu yàlla subhanahu wa taala ndax dafa bokk ci yërmande yàlla yi nga xamante ne yàlla defal nañu ko mooy daf ñuy ñaax ci di ñu digal naan ñu tuub leen bu ñu tuubee mu nangu ko ci ñun tuub googu nekk tuub goo xam ne dafa ñuy yewanal suñu mbir di ñu répareel di ñu defaral yàqu-yàq yi nga xam ne bàkkaar yi daf koy yàq ci ñun ndax bàkkaar bàkkaar yi nit kiy def day def ay dégâts ci moom ci mbiram ci dundam waaye tuub gi muy tuub bu fekkente ni nekk na lu dëggu dafay nekk loo xamante ni dafay réparer loolu moo tax mu doon digal yonente bi alayhi salatu wasallam naan ko sama jaam ñi ma gëm bu la dikkalee nee leen yàlla warlul na ci boppam yërmande ne da day yërëm ay jaamam kon képp ci yéen koo xamante ni dafati na bàkkaar ci njuumte mu def bàkkaar ndax bàkkaar njuumte rek moo koy waral même bu ko nit ki tayee def njuumte la ndax def na lu mu warta def saa bu nit ki defee lu mu warta def ci lu ko yàlla tere woon lam def njuumte la annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ginnaaw bi bu fekkente ni tuub na daal di yëwanal baaxal jël mbaax teg te taf ko toftal ko ci kaw loolu mu def ci njuumte yàlla subhanahu wa dina ko jéggal yàlla subhanahu wa taala dina ko yërëm mu bokk ci liy firndeel ak di wane ne jaam bi yàlla nammal na ko yiw yàlla jàppandalal ko tuub nga gis ko muy nekk nit kuy tuub di jéggalu di tiit ci ay bàkkaaram di ragal lool ci ak di bàyyi xel bépp bàkkaar bu mu def ak bépp gàttañ lu mu def loolu bu ko jàmm bi seetloo ci moom na sant yàlla ñaan yàlla doole ko ndax loolu bokk na ci li màndargal ne jàmm boobu yàlla nammal na ko yiw moom mu nekk ku am yëg-yëg ci boppam moo tax yonente bi alayhi salaam doon wax ne man saradhu hasanatuhu wa saatuhu sayi'aatuhu fa huwa mu'min koo xamante ni mbaax gi nekk ci moom bu ci bàyyee xel gis ne mi ngi yokk loolu neex ko ci xolam waaye lépp loo xam ne lu safaanoo lu baax la muy lépp loo xam ne lu bon la bu ko seetloo ci boppam da koy naqari nee na ku gëm yàlla la kon bu ngëm yàlla nekkee ci jaam bi dafa war a tax muy delloo xelam ci boppam di bàyyi xel boppam lopp lu muy bàyyi xel nit ñi mu mu safaanoog loolu wuteeg loolu li ñuy def tey suñ jamono ji ñu bari ci ñun li ñu alak yàq suñuy jëf gàkkal suñu diine mooy ni ñuy bàyyee xel nit ñi ak rigueur bi ñu am ci nit ñi ak li ñuy imposer nit ñi léeg lekk ñun duñu ci bàyyi xel suñu bopp duñu bàyyi xel noonu suñu bopp duñu bàyyi xel suñ suñu bopp ci bàkkaar yi duñu bàyyi xel suñu relation ak suñu diggante ak suñu borom ci loo xamante ni yoonu benn jaam newu ci loolu duñ ko def waaye loolu jaam bi daf ci war di bàyyi xel fu mu toll kon jaam bi góor góorlu ci li nga xamante ni bi moom mooy tuub ak di bàyyi xel ay bàkkaaram bu ko defee nay sant yàlla subhanahu wa taala ndax loolu xéewal bu rëy la ki nga xamante ni mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da ko jéggaloon bàkkaaram yi jiitu ak bàkkaaram yi mujj te fu mu toll daan nekk di tuub ak a jéggalu fu mu toll mi ngi daan tuub di jéggalu yàlla daan na wax ne maa ngi wàcc yàlla ne ci bis bi dinaa ci tuub di jéggalu lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon ci koo xam ne yàlla jéggal na ko ay bàkkaaram alayhi salaatu wasalaam ànd ak noonu la daan def kon loolu moo tax mu war suñu ñun fu ñu toll ñuy góorgóorlu di tuub ak di jéggalu suñu boroom balaa mbir di ñëw di dox suñu diggante ak tuub googu dootul nekk luy jàppandi ndax yàlla dina nangul jaam bi tuubam li fekk demul ba àgg ci situation boo xam ni dara deseetu ko ci àdduna dem ba ñàkk pexe ba nga xam ne xam na ni dara deseetu ko bakkan bi génn na dund gi jeex na muy soog a wax waxi tuub dañ koy dañuy tëj buntu tuub ci moom kon jamono ji dund di des ci jaam bi ay fanam ne fi mu koy dund jamono jooju muy ànd ak sagoom na góor góorlu ci tuub boobu yonente bi alayhi salatu wasallam nee na suñu borom ci yërmandeem ju yaatu day tàllal loxoom ci guddi ngir képp koo xam ne defoon na ñaawteef ci bëccëg boo jéggaloo yàlla jéggal bu bëccëgee mu tàllal loxoom ngir képp ko defoon ñaawteef ci guddi bu jéggaloo yàlla jéggal ko nee na loolu saa su nekk yàlla da koy def ba keroog jant bi di fenkee fi nga xam ne foofu la doon soowee mooy bu ñu demee ba bisu penc di waaja ñëw ci la yàlla subhanahu wa taala di soog a tëj li nga xam ne mooy buntu tuub waaye tamit bu fekkente ni jaam bi seetlu na ci boppam wala seetlu nga ci jaam bi ñàkk a yittewoo ay bàkkaaram ñàkk bàyyi xel ay bàkkaaram ak ay rëcc-rëccam ci na jàppul ne sax am na ay bàkkaar soxlawul sax nekk di tuub mu xeeb ko lool ñàkkal ko solo lool wàllu tuub joxu ko yitte loolu xamal ne mandarga ne suñu borom subhanahu wa taala namul ci moom yiw la mandarga la ci ne yàlla namul ci moom yiw ndax ku yàlla namul ci moom yiw kooku lay tëj ci moom buntu tuub du am yëg-yëg ci ay bàkkaaram ak ay tooñ-tooñam nit ki day bari ay bàkkaar lool sax seytaane ñëw di ko ko rafetalal ak di ko ko tuutil lool ci ay bëtam mu jàpp ne moom nit ku baax la nit ku mat la jàppal ne sax am na ay bàkkaar yu mu fiy nekk di tiit ak a jéggalu Abdullah ibn Mas'ud daf doon wax naan jaam bi nga xam ne moo gëm yàlla day ragal ay bàkkaaram di tiit ci ay bàkkaaram comme koo xam ne dafa toog ci suufu benn montagne di ragal montagne bi daanu ci kawam waaye jaam bi nga xam ne ab kàccoor la boo xam ne yoonam newul ci loolu amul yëg-yëg ci digganteem ak yàlla nee na ay bàkkaaram da koy xeeb ba mel ne koo xam ne weñ dakaa naaw romb mu daal di koy dàq ak loxoom noonu mu ñàkkalee solo dàq bi mu dàq weñ wi ak loxoom nee na noonu lay def ay bàkkaaram jàppeew ko muy dara mu bokk ci liñ mën a wax ci ay ngëneel yi nga xam ne nekk na ci tuub googu jaam bi di taqoo ak moom di ko def ngëneel yu bari la waaye liñ ci mën a tudd mooy ne ni jaam bi am yéeg yëg ak di ne day tuub di dellu ci yàlla tuubam googu day màndargaal ngëm gu mu gëm yàlla gëm ne yàlla mooy boroomam yàlla moo ko moom mbiram ci loxo yàlla la nekk keneen mënu koo jéggal ay bàkkaaram ku dul yàlla yàlla mooy jéggal ay bàkkaar te ngëm-ngëm googu ak am solo ndax tuub bi nit kiy tub ci kaw loolu la tegu loolu mooy laltaayu tuub nit ki gëmul loolu du tuub di dellu ci yàlla day dem ci yeneen mbir yoo xam ne ci lay jaar yaakaar ni mën na faa dem taqale ba ay bàkkaaram ñu jéggal ko ko loolu nag perte weesu pertaange weesuwu ko yàlla mi la sàkk li ngay def ci ay bàkkaar sa digganteeg moom la yoonu kenn newu ci boo ko jéggaloo mu jéggal amul ku ëpp yërmande yàlla nga rombu fi loolu yépp yàlla ubbil la buntu yërmande boo ne allah yàlla deg deg déglu la di deg. dégg ngay dem léeg-léeg ci ay jaam bu mel na yow boo xam ne boo demee sax moo la ay bàkkaar di ko jéem a neexal pour yaakaar ne neexal gi nga koy neexal loolu dina far say bàkkaar loolu pertange weesuwu ko mooy raccourci yi nga xam ne cheytaane da koy utal nit ñi bàyyiloo leen fi tuub ak jéggalu yàlla jàpp ne am na keneen ku ëpp ci ñoom yërmande wala ëppal leen njariñ yàlla mi leen sàkk loolu di nax bu rëy rëy rëy kon jaam bi bu fekkente ni ma ngay tuub ak a jéggalu yàlla li muy tekki mooy gëm na ci xolam ne yàlla moo ko sàkk moo ko moom te yàlla moo koy jéggal ay bàkkaar loolu moo tax suñu borom subhanahu wa taala wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko waqul rabbi xfir warxam wa anta xayru rahimin waxal ne yow sama boroom na nga jéggal te yërëme ndax yow yaay ki gën ci koo xam ne da nga yërëme mu jëfandikoo boroom baatu boroom muy wane ne nit ki bu gëmee ne yàlla mooy boroomam mooy moo yor mbiram yépp moo koy doxal kooku mooy ki gëm ne kon ci yàlla moomu la war a dellu sàkku ci moom mu jéggal ko bu fekkente ni dafa def rëcc rëcc bu fekkente ni dafa def bàkkaar ci yàlla moomu la war a dellu amul ci keneen ku mu war a dellu moo tax suñu boroom waxoon ne ñi nga xamante ne walladi ida faalu faaxishatan aw zalamu anfusahum dakaru llaha fastaghfaru li dunubihim lan la ci teg daf ne wa man ñi gëm yàlla xam yàlla bu ñu defee bàkkaar dañuy delloo seen xel ci yàlla tuub dellu ci yàlla ndax xam nañ ne amul keneen ku mën a jéggale ay bàkkaar ku dul yàlla yonente bi alayhi salatu wasalam nettali jële ci borom bi subhanahu wa taala mu ne ab jaam def na bàkkaar daal di fàttaliku yàlla ne yow sama borom jéggal ma yàlla daal di na ko jéggal naa la bàkkaar bi nga defoon ndax sama jaam bi day xam na ne ndakate am na boroom boo xam ne da koo tere ay mbir ba mu defee bàkkaar war na koo mën a jéggalu kooku jéggal ko te bu ko jéggaluwul kooku mën na ko caa daan xam-xam boobu mu xam ak ngëm-ngëm googu mu gëm lu réy la fa yàlla moo tax yàlla jéggal ko bàkkaar yi mu defaat bàkkaar jéggaluwaat yàlla ne sama jaam bi xam na ni am na boroom boo xam ne day jéggale bàkkaar te ku ko jéggaluwul say bàkkaar mën na la caa duma kon jéggal naa ko ci ñetteelu yoon ba wala ci ñaareelu yoon bi yàlla jéggal ko ba noppi ne na sama jaam bi def lu ko neex mooy lu mu defati jéggal naa ko alimaamu wi nee na lu mu defati jéggal naa ko mooy li fekk mi ngi am ngëm-ngëm googu ci di góor góorlu ci jéggalu digganteem mag yàlla yàlla da koy jéggal ay bàkkaaram loolu tekkiwul ne nit ki day nuur ci ay bàkkaar di def te naan yàlla dina ma ko jéggal ndax loolu waru la ndax dara waru la ndax tuub gi ngay tub yàlla dina la ko jéggal loolu warul te loolu lan lay indi tàmm lay indi tàmm bàkkaar lay indi tàmm bàkkaar mooy tax nit ki nuur ci dem ba bu bu demee ba bëgg caa génn dootu ci mën a tee génn kon loolu piège la bul dégg mu ko texte yi ñëw di dalal xelu jaam bi ak di ko yaakaar yaakaarloo ci yërmande yàlla ju yaatu nga naagu ci loolu nekkoon naa def lu ma neex ndax saa bu ma jéggaloo yàlla jéggal ma dara warul la ndax sa njéggal googu yàlla dina ko nangu jéggalu googu yàlla dina ko nangu am déet yàlla digal na jaamam dig na jaamam ñi njéggal waaye yow particulièrement bul naagu ci sa bopp ne man su ma jéggaloo yàlla jéggal ma ndax dara wóoru la mu bokkat ci ngëneel yooyu ba léegi mooy ne tuub day wane ne jaam bi ku am yaakaar ci yàlla la ku am rafet njott ci yàlla la ku gëm ne yàlla yërmaneem dafa yaatu la ndax bu yaakaarul woon yàlla du ko jéggalu loolu moo tax kon tuub dafa nekkaat loo xam dafa am lu bari lu muy firndeel ci pas-pas bi jaam bi am ci digganteem ak boromam subhaanahu wa taala moo tax yàlla wax yonente bi alayhi salaam ne ko waxal sama jaam ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo def ay njumte jëmale ko ci seen bopp ne bu leen di mukk ci yërmande yàlla subhanahu wa ndax yàlla day jéggale bàkkaar yépp yàlla day jéggale bàkkaar yépp ndax yàlla aji jéggale la te ci kuy yërëme itam la loolu moom moo war a nekk pas-pasu jaam bi gëm yàlla subhanahu wa taala moo tax fu mu toll dafa war di góor góorgóorlu ci di tuub ak di sàkku li nga xam ne mooy njëggalu yàlla subhanahu wa taala tuub ba léegi tamit nangu la gu jaam bi nangu ne moom dafa matadi ne moom dafa gàttañ lu ci digganteem ak yàlla nangu boobu nit ki di nangu loolu loolu tamit dafa nekkaat lu màgg lu rëy loolu ci yàlla subhanahu wa ci liy màggal tuub di tax tuub nekk lu am dayoo mooy jaam bii tuub ku ku wàcce boppam ci digganteem ak yàlla la nekkul ku rëy xam nga nit bu rëy nekkee ci moom ay tuub ak jéggalu yàlla ak yooyu du ko def ndax day jàpp ne moom yooyu soxlawu ko weesu na yu mel noonu waaye jaam bii tuub di tiit ci digganteem ak yàlla di góor góorlu sax ci lu baax waaye fu mu toll mu ngi tuub ak di tiit di ragal ndax yàlla nangu na li mu def ndax bàkkaaram yu bëri bëri yi mu def nii du ko alak comme ñu baax ñii jiitu woon ci ñi yonent bi ay salaatu salaam yar ni ñu meloon nga xam ne danga ci daan gis koo xam ne njàmbaar gu ne def na ko ci lislaam te fu mu toll mu ngi jooy dañ ko daan nettali ci Omar ibn al-Khattab di wax ne jooy yi mu doon jooy dafa demoon ba dafa def ay taches yu ñuul ci kat ci bët ci kanam gi ci ñaari lex yi nga xam ne boo jàkkaarloog moom da ngay gis ay taches yu ñuul ci kanam gi yoo xam ne jooy yu metti yi muy jooy ak tàngooru rongoñ bi moo dem ba def ko ci kanam gi ndax bari won lum daan joy ndax tit gum daan tit ci digënté mak yàlla abou abubakar siddiq da daan tok kërëm di joy joy yu metti buñ ko laajé mu ne maa ngi jëm ci al-akhirah di waja faatu te xawma luma fay fek xawma ndax yàlla nangu na sama jëf yu baax yi ma doon jëfam déet xawma ndax damay dem yàlla ne ma sa jëf yi nga doon def soxlawu ma ci dara dal di koy def mu nekk dom ñoñ dañoo xamone yàlla moo tax nit lu mu gëna xam yàlla di gëna xeb bopam di gëna wàcce bopam di gëna gis ak mata dem ci digëntem ak yàlla waaye lu nit gën a réere yàlla di gën a gaaw a naagu su suffit que mu def lu tuuti rek daal di teg boppam fu rëy rëy rëy rëy loolu waru la boo xam ne jàmbi da ko war a kon tuub nangu la ko nit ki di nangu li nga xamante ni mooy ay bàkkaaram ak ak matadeem ak gàttañ loom te loolu la yàlla subhanahu wa taala sàkkee noonu la yàlla sàkke mu bokkaat ci tim ba léegi ci liy jëmmal ngëneelu tuub mooy ne tuub rëcc la bu jàmbi di rëcc ak daw pexey seytaane ndax seytaane lim bëgg mooy jàpp jaam bi nuur ko ci ay bàkkaar utal ko ay lay ay excuse utal ko ay alibi fexe ba rafetalal ko bàkkaar yooyu nuur ko ci ngir di ko soril yàlla seytaane loolu rek la bëgg moo tax yàlla nañu woon wala tattabiu xutuwaati cheytaan bu leen topp jéegooy cheytaane innahu lakum aduwun mubin seen noon bu bér la innama yamurukum bil bilfahshaai wa an wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun innama yamurukum bis wal walfahshaai wa an taqulu ala allahi ma la taalamun li leen seytaane di digal mooy ñaawteef ak ay bàkkaar yoo xamante ni yu jéggi dayoo la loolu la leen seytaane di digal lu bon lu ñaaw la leen seytaane di dugal même bu ko rafetalee ci kaw boo demee ba ci biir xam ne lépp lu bon la lépp lu ñaaw la ak yàq seen pas-pas seen digganteeg yàlla ba gis-gis bi ngeen di am ci yàlla du baax li ngeen di wax ci yàlla du nekk lu baax wa an taqulu ala allahi ma la taalamun ngeen di wax ci yàlla loo xamante ni xamoo leen ko loo xamante ni teguwul ci xam-xam dëppoowul ak xam-xam kon bu nit ki di tuub di di dellu ci yàlla moom di gën a jege yàlla loolu da koy soril pexey seytaane yooyu day tax seytaane day échoué ci moom moo tax seytaane li mu gën a bañ ci nit mooy tuub li seytaane gën a bëgg rek mooy jekku nit jàpp ko ci réer ba gëmloo ko ne soxlawul di tuub moo tax dañuy wax ne bàkkaar yi gën a danger mooy bàkkaar yoo xam ne seytaane day ñëw rafetalal ko nit ki ba mu jàpp ne li muy def nii du bàkkaar fekk ne bàkkaar la mooy xam nit ki da ciy nekk yëg ne moom soxlawul tuub ndax li mu nekk jàpp na ni du bàkkaar loolu mooy li seytaane gën a soxla ndax réussite la boo xam ni day waral muy bàkkaarloo jaam bi ba noppi jaam bi du ci tuub du tuub du dellu ci yàlla mu bokkaat ci ba léegi mooy seytaane bu defloo nit bàkkaar da koy mbugal ci bàkkaar boobu da koy jàpp li mu soxla rek mooy néewal doole nit ki ñàkkal ko solo ba mën koo jël def ko jaamam kenn da doon wax naan seytaane amul ay xarit ay jaam la am ku dem ci kërëm rek yaakaar ni da ngay waayoo ak moom xamal ni jaam la lay def bu ko defee di la torturer di la mbugal di la di toroxal nit ki di ko di ko sonal lool day pousse nit ki xër ko ci ay bàkkaar ba mu def ko bu ko defee mu yólbati ko jël bàkkaar bi di ci yàq xolam di ko ci indil ay jax-jaxal ak ay sikki sàkk bu demee ba nit ki bëgg a rëcc ci ay piège am pour dellu ci yàlla muy ñëw di yàq xelam naan ko yow da nga fàtte li nga fi defoon sa lu ñaaw yi nga fi def yépp tey nga yaakaar ni tey mën ngaa xëy rek ne da ngay tuub mu mel ne comme dañ ko effacer di delloo xelam ci ñaawteef yi di ko sikki sàkkaloo ci ndax yàlla dina ko jéggal am du ko jéggal ngir xaddiloo ko ci yërmande yàlla ba bu xaddee ci yërmande yàlla ne kon jaratul may nekk fi di sonal sam bopp naa continuer ci la ma nekkoon loolu piège bu garaaw la bu seytaane di def am na sax bu ko gën a garaaw bu ibnul qayim di wax mooy ñaaw njortu gi muy tàbbal ci xolu jàmbi bi dañuy naan ida saa amalu abdi saat dununuhu wa saddaqa ma ataahu min tawahumi nit ki bu ay jëfam ñaawee ay njortam day ñaaw loolu bokk na ci ba léegi piège u cheytaane mooy cheytaane bu poussé nit ki ba muy def bàkkaar dafay indi ci moom benn ñaaw njort bu garaaw a garaaw mooy nit ki dafay nekk koo xamante ni dafay susceptible day am benn susceptibilité buy nekk ci moom léeg-léeg sax mën nga wax ne dafay dem ba dafay paranoïaque ndax bu ko nit xoolee sax mu yaakaar ne daa am lu mu ko xamal yu ñaaw yi muy def di ko làqatu daa am lu mu ko déggal wala lu mu ko xamal bu nit rombee nuyu ko sax du ne daf ma gisul wala dafa yàkkamti day yaakaar ne kooku daa am lu mu ko xamal alimaam ibnul qayim nee na seytaane mooy def loolu ci ci ci doomu aadama bi ngir gën koo sonal ak gën koo mbugal ci bàkkaar yi mu koy def loo mooy def dafay def loo nit bàkkaar ci fu kenn fekkewul ba noppi mel ne comme dafa jël bàkkaar bi taf ko ci kanam gi nit ñi mel ne dañ koy xaw a flairer dañ koy xaw a yëg mel ne ku xaw a sentir loolu indi benn ñagas-ñagas bu am ci relation nit ñi ak moom moom itam muy yëg loolu loolu di ko torturer di nekkaat beneen mbugal ci moom loolu noonu yépp li muy tekki mooy rek nit ki buy góor góorlu ci tuub loolu da koy musal ci pexe moomu nga xam ne bu ko ci seytaane laxasee ba jàpp ko ci yàqal ko addunaam yàqal ko diineem mën na dem ba dawloo ko defloo ko repli sur soi mu daw nit ñi daw nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom la doon fréquenté daan jariñ ci ñoom nga gis mu commencé mel ne kuy genewu bu toogeek ñoom wala bu leen gisee fekk ne lépp seytaane moo koy def ngir def isolé ko bu ko isolé rek gën koo néewal doole gën koo sonal stratégie boobu la seytaane di jëfandikoo moo tax yàlla ne seytaane li mu leen di dig mooy ñàkk ak di leen digal ay ñaawteef yàlla nag li mu leen di digal mooy yër yërmande la leen di ak ngëneel mu bokkat ci dina tuub dafay setal jàmm bi ci taqi-taq yi nga xam ne mooy taqi-taqi bàkkaar yi nga xam ne dafay yàq diineem yàq addunaam diisal ko bàkkaar yi day dem ba day def ay feebar ci nit ñi bari na ay feebar yoo xam ne mi ngi tasaaroo ci suñu réew yi bàkkaar ak ñaawteef yi nit ñi def ci seen dund rek moo ko waral ci lu bari ak yu bari yoo xamante nit ñi dañ koy jàmbat ci ay problème yoo xam ne ay problème mu xel la ci wàllu psychologie nit ñi duñ ko gis naam ci luñ jàpp ci wàllu yaram mais ci ay problème yu rëy rëy yoo xam ne dafa nekk ci nit ñi bàkkaar ak ñaawteef yi nga xamante ne nit ñi nuur nañ ci dafa dem ba ay problème ak ay déséquilibre lay indi ci doomu aadama yi ndax lépp lu yàlla tere nit rek yàlla xam na li tax mu tere ko kon bu fekkee nit ki day góorgóorlu ci tuub tuub boobu dafay réparé waat loolu bàkkaar yi doon yàq yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuhan la yàlla waxoon yéen ñi gëm yàlla tuub leen dellu ci yàlla tuub boo xam ni réparatrice la dafay defaraat dafay réparé li nga xam ne bàkkaar yi daf koo yàqoon tuub dafay réparé lu ay bàkkaar yàqoon noonu la ko yàlla tuddee loolu nag mooy tuub bu dëggu boo xam nit ki da ci sàmmonte condition wu tuub fexe ba rëccu la mu defoon bàyyi bàkkaar yi fexe ba góorgóorlu ci xolam ne lii dootu ci dellooti ndax tuub moom dëggu la dëggu alimaam ibn xajar daf doon wax naan nit ki di njortu ne des na ko jéggal ay bàkkaaram ànd ak ne mi ngi nuur ci bàkkaar yi ba léegi nangu koo bàyyi nee na loolu waru la loolu du tuub nee na loolu xuruur la mu bokkaat ci tamit ba léegi mooy ne tuub dafay yëkkati jaam bi yokk ay ngëneelam nit ki lu muy gën a tuub rek yàlla di ko gën a yëkkati di ko gën a yokk ay ngëneelam moo tax jaam bi war di góorgóorlu ci di tuub loolu moo lay won secret bi nekk ci lan moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam daan bëri lu muy tuub ndax yàlla dafa tudd ay nit ñoo xam ne dañoo def ay ñaawteef yu bare bare bare yàlla ne ñaawteef yooyu bu ñu ko indaale yowmal qiyaam dana leen bugal waaye mu ne lu dul koo xamante ni mu li mu waxoon walladina laa yaduuna maa allah ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaqi wala yasnuun wa man yafal dalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مو يالا لم وقتي لم لم تي اي بكار كاي في نيو نيو ديف خم بوكال لا مو خم راي نيت لا خم جالو لا يالا ني لول بونكو اندالي دنا لين بوغل بوغل مو بير سفارا دنا لين ساخ دوبلل مبوغل مي واي مون لودول كو خامتاني دا فا laata muy dëkk laata muy faatu mu tuub nee na kooku ku tuub te dëggu ci tuubam góorgóorlu ci ay jëf yu baax nee na kooku yàlla da koy jéggal jël ay ñaawteefam yi mu defoon soppil kooku ay jëf yu baax loolu am ñaari tekki ñu ko borom xam-xam yi tekki ulaika alladina yubaddilu llahu sayiatihim hasanat ñeen ñi nee nañ sayiatihim mooy jazaa sayiatihim mooy bàkkaar yañ defoon lam leen juraloon ci ay bàkkaar jëf yu ñaaw yañ defoon lam leen juraloon ci ay bàkkaar bu ñu tuubee tuub gu dëggu loolu la yàlla di jël soppi ko def ko ay yiw kon la la leen yàlla waroon a mbugalee ëllëg moom la leen di jël yërëmee leen ko jéggalee leen ko wala nga ni yubaddilullahu sayyiaatim xasanaat mooy yàlla seeni ñaawtee fi jëf la ñaawoon ci seeni jëf ci jëf yu bon yañ daan def yàlla soppi ko wuutal ko daldi leen xërtal teete leen ñu góor góorgóorlu ci di def lu baax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 ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله